non je disais que. ça Xaadim bàyyi ma continuer continuer continuer. mais continuer continuer. ah continuer. ah non non non non mais franchement. ah non ah non non non. mais non permet à Ahmed de revenir sur. Ahmed Ahmed continuer. non waaw Mouhamed xaaral ma ñëw fii du yow yaay dëggal sëñ Xaadim fii du yaay posé question yi nag. waaw waaye nag ah des fois ma relance de ñëw rek waaw. nga ne ma ma dugg ci biir ay ca duggal ñu xool. yow bi ñu ko yëkkatee. waaw. ko moom indi ko ba fii. waaw ci wax duggoo ci biir. wa ah. man nu may duggee ci biir ku ci biir. yow yaa ko yëkkatee. di nga wax xaaral xaaral sëñ Xaadim di nga wax vision yi. sañ Xaadim di nga wax 15 orientation di nga wax deux cent sept xam nga. ku dugg ci biir mais sëñ mille presque sept points. sëñ Xaadim ou bien mesure de sëñ Xaadim nañ def ndànk rek sëñ Xaadim sëñ Xaadim. ah sëñ Xaadim je vous dis de. sëñ Xaadim voilà. lii lii dama koo mën. mais dama ko indi sëñ Xaadim sëñ Xaadim. pour muy <laughs> alors saa yi. non déglu la on a présenté ça. ci yeggali xam nga lu tax. ah mais le tu du non mais xam nga sais oui mais non non non non ah bon. et tu as refusé de continuer. Ah. déjà c'est question par rapport au front social. mais ma non non Il dugg une question. Ahmed par rapport au projet oui pourquoi que allez-y. le dire allez-y allez-y sur ah. le projet. Voilà par non non ma dama ci dama ciy daaneel ci biir fi mu jeexee. waaw ci fi. en avril 2024. ma ci livre question bi. ci question bi ma question bi question bi. que euh, <laughs> question bi front social bi. Ah, ma front social

ba deux mille vingt quatre dix ans la mais xale bi juddu woon deux mille quatre. Mhm. deux mille quatorze day fekk mu am dix ans. Mhm. ci dix ans boobu day fekk mu nekk ci âge de la puberté dafa am benn démonstration bu ma leen bëgg a defal âge de la puberté ñun ñii ñëpp bañ ci tolloo dañ ñuy wax ne xale bi foofu nga ko mën a amee wala fa nga ko mën a ñàkkee fa nga ko mën a tegee ci yoon wala fa la mën a réer boo ko surveillé wu mhm. maanaam Pastef ba muy judd xale yi juddu woon deux mille vingt quatre fa lañ toll. war a jóge ci puberté bi nag jaar ci ado. ñëw deux mille vingt quatre fooy teg magi Pastef. Hmm? fooy teg magi Pastef. non waxul loolu de. mi ngi ci leneen dama ne la waaw waaw doo ko bàyyi mooy ay xale yoo xam ne ay innocente la leen dajale convaincre leen du loolu. ñun on a amené un projet boo xam ne dañoo convaincre donc maa ngi ñëw rek yaa ngi koy yeggali li mu bëgg a wax. waaye dama ne la parce que dañ ko xam. moo tax nag dañ koy dabu Mohamed lii dama ko mën. waaw accord léegi si te plaît waaye du ndam. waaw mais d' accord du parce que sénégalais ñoo ñuy déglu. <laughs> waaw Xaadim. ah oui yaay sunu sëriñ nag. maay seen sëriñ de. waaw kon sëriñ bi waaye bi des fois sëriñ bi des fois mu indi jikko yi ñoom. raam a baax yéen a ngi mais ñii amuñu jom comme ay sàcc laa la wax nii boo leen tëbalee fii ñu jàll feneen nga tëbalaa leen foofu ñu jàllaat feneen lii vrai ñàkk jom nit ki boo waxul dëgg da ngay nangu ne yow waxoo dëgg quoi da ngaa fen boo xamul da ngay laajte sama gars yi dama bëgg ngeen di abone di like vidéo yi di partager gars yi comme ay sàcc surtout Ameth Ndoye mii nii Ameth day dugg fenn nga tëbal ko foofu noonu mu demaat feneen nga tëbalaat ko mu demaat feneen moom xam na ne lu muy wax nii taxawul du dëgg du yoon moom xam na ko sax lii nag booy fooy jafandu yow boo wëree wër wër bu sonn amoo foo jafandu ngir yàlla doo nangu doo nangu ndogalu yàlla nga xam ne ñii ñoo fi nekk ko yenni yi ñàkk jom la. wala ñàkk xam-xam wala soxor wala iñaan man dama comprendre tul affaire bi mu demee nii Ameth Ndoye yow nee nga livre bii nii ci coalition Diomaye 2024 bi moom la livre bu génn ko waa ji nee na la nga xool contenu bi bul xool ci couverture bi rek nga jàpp ne livre bi lu bees la mais ñii seen projet bi dafa yàgg balaa ngay juger nga xam mais Ameth Ndoye mii est-ce que Ameth Ndoye nit la quoi sama gars yi loolu laa ne di laaj te nit la amee ndooyi daal nee moom du bàyyi ko nii la ko nar a jàppee bu xaw ma 2000 ñaata nii nga ko nar a jàppee continuer si lii fekkee nii nga ko nar a jàppee amee ndooyi dafa jot nag nga nangu quoi nga nangu même su fekkee benn point sax nga nangu yow nee nga par la force yow da ngay da ngay da ngay opposé wu même boo gisul loo wax boo xamuloo war a wax tamit dangay ngay opposé foog nga wut loo wax même soo amul leneen loo wax foog nga créer ay affaires yoo xam ne da nga koy critiquer Bassirou Diomaye fay amee ndoy ngir yàlla amal jom quoi amal jom wër nga bu sonn wax nga wax a wax bu sonn yow amoo loo xam ne mën nga ko tey ci taabu bi ñu xam ne ñii ñoo def lii mais wër nga bu sonn amoo doo noppalu nga am jom tuuti sax yow daal par la force dangay wax gis wax gisoo wax mais gëm naa ne danga nar a dangaa nar a sonn nag danga wër bu sonn doo am loo wax ñii ni ku leen nar a topp moom ku leen nar a opposé wu danga sonn sa xol lu neex de billaay wala yéen seen xool lu neex ndax fii 2000 xaw ma ñaata la ñuy yem doo doo leen gis loo leen wax quoi jàppoo leen ko noonu rek <laughs> jegam lii mooy seen liggéey jàppoo leen ko noonu rek waa ji nee na la livre bi xoolal ci continue bi ubbi livre bi nga liir dangay war a ubbi nga xool li nekk si biir livre bi quoi ndax lu bees la ndax lu yàgg la mais xooloo ko dangaa xool foto bi nga xam ne moom la coalition Diomaye doon campagne rek Lubez <laughs> là quả Lubez là dañ koy soog a bind Amine Ndoye yow kañ ngay am xam-xam même booyu ndaw yi nga xam ne ñooy toog di leen seetaan sax ñoo la ëpp niveau quoi yow waruñu la sax teg ci télé yi ñu booy di la seetaan mais lii ba kañ Amine Ndoye lii ni nga ko nar a jàppee ba kañ laa xamul Amine Ndoye dafa jot nag nga ñëwaat ci dëgg quoi ñëwaatal là dëgg được que ñi ngay xeexal sax ñoom xam nañ này ñii ñoo này ci được ยังเงี้ยากจมนี่ยาวดูใบกายาวดูไปนะไั้เขกประเดนี่ตัวก็ยาวจีปลาดูดีกว่ามันสเปกคนเนี่ยได้มาเอฟเฟกต์ยาวจีปลาดูดูมาสักส่วนั้สมบูรณ์แล้วไอ้แฟนมาเจอสมัยปากัดเดิมสมัยย้อนยี่ปีไปแล้วฟูมโนนุก็กงอัมตางแฟนตัวก็แฟนบุกสายแล้วเนี่ยเข่งกัเดิมยี่ปีเมื่อดูมาจากการลอยยางเงี้แฟนมาเลยเซียตันขลาดูมุกสักว่าละมาเลยเดือดขลาดูมุกสักขลาดูมุลโนนุอเมนดูดาลจ้าหลังมุก้า gars yi dañ may wax ci commentaire yi ne baal ñi ngay dugal baal ñi ngay ñi ngay dugal concentré wul ci projet bi del dugal affaire Ousmane Sonko yi yi muy def ci lu baax day dugal del del jëmal projet bu del wax ci projet bi affaire yooyu noonu mais gars dañuy jàpp ne dañuy bëgg ay vues rek moo tax ñuy dugal ñii nii mais du loolu sama gars yi loolu nekkul ay vues lañ bëgg wala leneen lan leneen moo tax ñuy dugal ñii nii mais ñii foog ñu woon leen ne ñii li ñuy def nii du dëgg du yoon. waaw su ma ñëwoon rek wax ci moom bañ a dugal video bi yéen am na ñoo xam ne gisuñu vidéo yi am na ñoo xam ne gisuñu dégguñu sax ñii lu ñuy wax suñ ñëwoon rek wax suñu wax duñ comprendre doo leen xam fu ñuy waxe mais lu mel nii moo tax ñuy sonn lu mel nii moo tax ñuy def ay vidéo di di dugal quoi ndax lii dafa jot mu jeex dafa jot ñi noppalu quoi dafa jot ñi xam ne ñi li ñuy xen ni du dëgg du yoon yow fekkee Amadou Ba ngay xeexal wala Bougane wala yeneen opposants yi ñooñu waxuñu ñooñu nee nañ ñii ñoo ngi liggéey ñoo ngi si yoon bu baax nañ leen jàppale affaire jëm ci kanam mais yéen non xaw ma liñ leen fay la xaw ma dañ leen di fay xaw ma nu demee noonu mais sonn ngeen trop ci xeex bi sonn ngeen trop ameen doo yow yow doo politicien nee nga du yàgg-yàgg ba nga posé sa candidat yow looy xeex looy xeex yow. yow instant bi da nga waroon taxaw temb ci Sénégal jëm ci kanam ci Sénégal gën a neex Sénégal gën a dox mais yow daal say affaire yëpp ci critique nga koy yemal fekk ak ci se mais yàlla baax na <laughs> jàppal si loolu dégg nga ba xam ndax dana la avancé loo wala jaajëf sama gars yi maa leen di bégge bu baax baax ba ci beneen vidéo gars yi abonné leen di like di partage vidéo bi ba ci beneen vidéo gars yi jaajëf